nuyoo boobu nag ñu teg ko ci loxo ki nga xam ne moo fi dajale mbooloo mi te kooku feeñee ci jëmmu Cheikh Assane ndax yàlla moom kenn la rek mbubb yi ñoo bari moo tax soo ko xamee xàmmee rek day mat kon seex Assane ñu ngi lay jox nuyoo bi nga jox ko mboolem ñi nekk ci tànt bi mbooleem ñi nekk ci àdduna bi Cheikh Aliou Diouf ñu ngi lay nuyu bu baax waxtaan bi kawe na ñaaxe na dollee na yéege na ba tax naa mat na sëkk xanaa rek dañ ciy feeñal suñu yéene mu mel ni jamono réere nañ lu bëree bëree bëri ba tax ñu jàpp lu bëree bëree bëri muy xam yàlla ñoom dañoo jiital li nga xam ne moo mujj ndax li nga xam ne mooy jaamu yàlla ci kumpa lii la ñu bëri di waaxoo ba dugg safara ndax ci kumpa la ñuy jaamoo yàlla yàlla bi mu waxee ne wa ma xalaxtul jinna wal insa illa liyabudooni dafa teg sart daf ne faarifooni xabla an taabudooni way lam yaarifooni fa kayfa an taabudooni moo tax yonente yàlla daawuda bi mu xoolee gis yàlla sàkk ay mbindeef dileen leen di tëkku ak di leen di dig tëkku leen ci safara dig leen àjjana te mu xool ne jaam ñi defaluñu dala yàlla ci kaw suuf mu posé yàlla ne ko li ma xalaxtul xalq moom moo waxoon yàlla ne lu tax nga bind mbindeef yàlla doo ko tontu ne ko kuntu kansan muxfiyan lam uhraf fa ahbabtu an uhrifa fa xalaxtul xalqa fa taaraftu bii fa bii yaarifooni mu ne damaa nekkoon ndàmb loo xam ne kenn xamuma ndax ku koy xam nekku fa woon nee na ma bëgg ñu xam ma ngir ma nekk yàlla ñu nekk ay jaam mu ne ci laa bindoo mbindeef bu dee firi kaw bi mu ne ci la bind mbindeef bind googu nag moo jaaxal lii moo tax nit ñi réere yàlla dañu yaakaar ne yàlla dafa bind kon nee nañ la fi la nekkoon avant muy bind dara te bi mu bindee bu pare ni mu nekkee woon la nekkee kon fu mu bind fu mu ko teg kon dafa bindoo mbindeef yi mu ne ma xam lu ci mbindeef moomu ci mbindeef bi lañ may xamee kon kuy wër yàlla romb nit moo lay wan ne réere nga yàlla te nit ñi nag ci jàkka yi lañ koy xool ak ci weeru koor yi ak ci màkka yi ñu juwaaj ni tey xam nga màkka tey ñu bëri ñu ngi dagg billet yu seer te romb fii ku mel ni Cheikh Assane Diouf buñ demee yàlla du leen wuyu buñ nee la bayka laa la bayka lañ leen di wax mais dëgg la da xool aj boo demee ci iqaasul himam fi sarhil hikam ndax euh, taiyatu suloo ilal malikil muloo téere la boo xam ne seexul xadim foo ko fekkaan mu ngi ko yor mook tafsir bi ñuy wax tafsiru jalaalayni ñaari téere yii la daan yor lu ëpp wala foo ko fekkaan yor na ñaari téere yooyu téere boobu boo fa demee mu ngi wax mu ne alxajju xajjaani mu ne aj ñaari aj la mu ne xajju jismaani mu ne ajug yaram wi wa xajju ruuxaani ak xaj bi nga xam ne ruu koy def mu wa xajju jismaani ila kahbatil mabaani wa xajju ruuxaani ila hadrati tadaani wa man xajja ila kahbatil mabaani xusisat bi xufraani wa man xajja ila hadrati tadaani kusifatil xujbu mu ne aj daal ñaar la aju jëmm ak aju ruux mu ne aju jëmm ji ci kaaba gi ñu tabax la aju ruux gi nag nee na ci pays bu sell bi la mu ne ku aj ci kaaba gi nee na mën nga am sama njéggal waaye ku aj ci pays bu sell bi nag nee na ma wuññi la samay kiiraay ba nga jàkkaarloog man dañ ne gis yàlla dàq dugg àjjana lan la ñu wuti màkka wala nit ñi dañoo gëmut xam nga yonent bi mu waxee ne alxaju arafa daf leen a alxaju arafa at ñu ne mu nga arafa arafa mooy lan lu mu tekki ci arab mooy xam alxaju lu mu firi alxasdu mooy jublu kon buñ demee arafa yonent bi lañ fa war a fekk mu xamal ñu suñu borom won ñu suñu borom su loolu amul ay biir nga fay laal xam nga benn saxaaba dafa xool xajarul aswad bi nga xam ne moom la nit ñi raay mu joxar bi ko ne ko innaka xajarun laa tadur wala tanfa walaw laa raaytu rasulullah yuqabiluka maa ka mu ne yow doj képp nga doo jëriñ doo lor su ma gisutoon yonent bi di la foon du ma la fóon te nit ñi nag yaakaar nañ ne foofu la jaamu gi nekk sëñ Tuubaa bi mu fi nekkee ci jamono lan la waxoon aju ilayya aj si leen ci man walla sëñ Tuubaa mu wax dañ koo gëmul mu ne suñ borom bind na kataba laahu tabaraka wa taala ana baytullaahil haram tarfahul malaikatu ila Touba kon ban Touba bu dee Touba gi gisuñu fa Kaaba bu dee jumaa ji ay nit a ko tabax kon ana kaaba gi muy wax te nee na jibril ànd na ca rasulullahi ànd na ca waaye waxut muhammad na wa fihi rasulullah maha aminil wahyi ak ki yor wahyu bi kooku mooy kat ji taxaw naan jumaa ji la mais lii yabaate la kaaba ga est-ce na fam nekk kon dafa am ku fa jóge kooku nag ku nekk mu ngi ci yow alquran a ko wax waxlamu anna fiikum rasulallah góor yàlla yu njëkk yi dañ daan wax ne dañoo fanaan kaaba gi di leen di wér góor yàlla yu njëkk yi nag dañuy paas paas yu mujj yi nag ñi naan ay góor yàlla lañ dañuy jóg wér yi dem pa wéri kaaba gi dañuy kaaba gi dina doon wér duñ lijjanti lool ah Cheikh Tidiane lu wax tatarhar bi maa il xay bi in kunta sirri wa ilaa fa tayamum bi siini wa sahra est que lii tijaan yaa ngi koy wax demal laab ci ndoxum xay bu fekkee am nga sir nee na soo ko amul nag mën ngaa dem tiim ndox mi yëpp yàq nañ ko jàkka yi ku ne place nga wut bu fa nit taxawee sax nga bëgg faa jële paa yoo xam ne dañoo cakaay ba màggat di xëccoo ay place ci jàkka naan lii mooy néegu yàlla waaw léegi bi jàkk amul fu yàlla daan fanaan néegu yàlla te yaa fay dugg xanaa yaay yàlla wallahi xam nañ ne dañoo yëgut seen bopp parce que nit ki boo ne ko ana nga muy laal dënn xamagul boppam te bu xamul boppam mënul xam yàlla kon nit ñi xamaguñ yàlla de koo ci wax nag mu ne xam naa yàlla bu wér nga wax mu indi la xam-xamu xale yi yàlla moo bind asamaan moo bind suuf moo ma bind moo bind nit ñi ñëpp mais loolu wax ju yàqu la te nit fan la juddoo fa mu jóge nit koo gis ci ñaari nit la jóge ba mu des aadama léegi kon ana yàlla mi la bind ak fan la la bindee ana xalima gi fan la ne ana alwaam gi fan la ne koo gis mu ne yàllaa ma bind ana bind bi mu la bind mais lii rek nit waroon na ci poser question ba jóg yëkkati boppam yóbbu ko ci Cheikh Assane boo toogoon sa néeg nga ne yàllaa bind toogal rek nga ne man waaw man kan moo ma bind yow mi may dégg te xamoo li may wax tëjul sa néeg nga ne kan moo la bind nga ne yàlla nga ne ana mbind mi fekk leeru la bu fa génn wala boo fa génnee demal wuti seexal murabbi bind bi mu la bind soo ko gisee chaque jour ci ngay commencé bismillahi xam nga nit ñi dañuy wax ne duñ gis yàlla mais ñoom dañoo nekk ay yàlla te yëguñu ko booy saraxe looy wax am yàlla jox la ana yàlla mi joxe kii nangu andi yàlla nangul la ñaari yàlla ni foofu ah moo tax muy wax nax nu nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ñoo gën a jege ci moom buumu xam nga alxuraan gis nga ñi koy firi war nañ seetaat seen bopp gis nga alxuraan bu waxee kum xam nga kum jamxu la moo tax mu ne wax la mu ana fii kum kum kum adadiyan dafa nekk soixante kaaf ñaar la miim ñeent fukk aadama ak hawa boo leen boolee lan la 15 ak 45 du 60 kon waxtu wu mu ne kum rek indi na góor ak jigéen moo tax mu ne wala xat anzalna ilaykum kitaaban wàcce nañ ci kon aadama ak awa su ma ne aadama ak neel góor geek jigéen gi fii nekk na ci téere boobu sikrukum seen tur kon ban téere la kon da ngay génn téere bi ñu bind te dem ci téere bi mu bind ndax li yàlla bind moo gën li nit bind xam nga benn waaye damay waxtaan ak moom barki démb rek mu nekk ci alxuraan di jàng rek ma ne ko alxuraan dëgg dëgg dëgg dëgg est nañ ko bind ciw kay mu ne ma ah alxuraan ji mooy alxuraan ma ne ko kon li alxuraan wax téere bii mooy wax de ma ne ko fii la wax ne yamhu lahu wa yusbit wa indahu umul kitaab am na téere bi foo xam ne dañ koy far am na foo xam ne dañ fay bind far bindaat boobu ban téere la téere bi ñuy far ak bi ñuy bindaat ban la mu ne ma ah ci téere bi dala ne wax bi fala ne waaye jëmm ji fan la ne mooy téere bi yàlla bind teg ko nga dajeeg Cheikh Assane mu xool lawhu gi gis ñu bind fa texee di mu far ko bind fa texe foofu mooy yamhu laahu wa yusbitu wa indahu umul kitaab foofu mooy ndey téere yi kon sëriñ dafay àgg foofa sëriñ nag sëriñu jamono ji fi mu toll nii ay oto lañ yoo xam ne yu paan lañ mënatuñoo dem dañoo war a yëkkale client yi mbaa client yi am fu la wàcc demal ci arrêt bi rek boo yéegee oto mu yéex a dem nga ne ko wàccee ma damay dem damaa yàkkamti waa lan moo tax nag ñoom sëriñ yi yëpp leen war leen a ci yàlla ak ku ñu te duñu duñ wàcc lan moo tax benn taaliba boo gis mu nga seet benn sant muy mbàkke wala muy si mu jébbalu ci moom ngir askan te yàlla ne wa isaa nufiqa fii suur fala ansaaba yow yawma isin wala yatasaaluun buñ walee bufte gi amul askanoo askan doxu fa léegi nag sëriñ ñi nga xam ne nanguwuñoo yekkale te ñiy taxawal ay oto yu bees pul am gasoil bu doy di jël clients yi ndànk xam nga marode gaa ñi dañ koy def de mais léegi fi mu toll nii gaa ñi fu ñu yéeg oto yu bees yi rek lañu ñuy yéeg oto yu ndaw yu gën a gaaw yi léegi nag sëriñ yi nga xam ne ñooy yu mag yi yiñ jàppe mooy yu mag yi ñooy ñi nga xam ne ñoo woote mbooloo ba mu fees te amuñ dara ñooñ ñoo yeb ba mu fees nag gaa ñi di wàcce kon sëñ Touba la mu waxoon ci jamono ñëwaat na wa in hajasta an waradil mawridi fala taxuq anhu aqimin ahadi yow mii loo duyal nit ñi soo mënatula duyal nit nee na yewi ko bu ko tënk te fi mu toll nii jamono sëriñ yu bari tey ñu ngi wut fu ne ñu fay dugg di suul ay bopp ak lu ne ñu def ngir ami taalib mais loolu day jeex xoolal mu màggal bu jotee gàmm bu jotee nit ñi lañ lañ fay def yi noos rek lañuy def am na ñoo xam ne sax xamatuñu ka sosoon yoon wala mu woote tey boo demee Tiwaawoon nga ne gis yàlla ñu ne la déedéet nga dem Touba ñu ne nga gis yàlla nga ne déedéet nga dem Njaasaan noonu même laayeen gi bërki démb rek xool ko laay maxtaar laay maxtaar laay mooy lan mooy Allah maxtaar mooy Muhammad kon yë daan ñëwuñ ci kër gi imaamu laay ne la sa tur ak sa sant foofu lay yem gindi la ci yàlla gindi la ci yonent bi allahu muhammad léegi nag ñu bari tey ñu ngi koy wuyoo barki démb rek benn laayeen ma ne mu ne ma laay ma ne ko laay maxtaar mu ne ma lan moo tax ngay wax loo est-ce que ma ne ko yow lan moo tax nga di ko wax mu ne ma man kay damaa juddu fekk ñu di ko wax rek ma ne ko loolu la yonent bi waxoon xam nga yonent bi mu wootee dañ ne ko ñun yonent yu njëkk ya lii ngay wax nii daawuñu ko wax suñu baay yi lii ngay wax ni daf ne suñu baay yi waxuñu lii ngay wax mu ne awalam kaana abaahum laa yaqiloona say an wala doon su fekkee seen bàyyi nekkuñu woon ñu gindeeku jubuñu bu neen leen toppee ci loolu fu ngeen jëm safara léegi nag li gën a jaaxal nit ñi mooy yonent ñu ne yonent dootul wàcc yonent est-ce que mos jóge yonent ki ci kim nekk moo fiy jóge yàlla bu la yónnee bu yonent ki matee yow lay jël dem wàccee la ngay tëdd nga noppalu mu jël yonent ki joxaat ko keneen looloo tax mu ne alxulamaa warasatul anbiya borom xam-xam yi ñoo donn yonent léegi ki doon borom kër gi lan la du borom kër kon ki doon yonent bi lu mu doon mais nit ñi jamono toll na foo xam ne ci mbewte ak wutub dërëm loolu képp moo dox diggante nit ñeeg yàlla tey sëriñ boo nee sëriñ sax ñuy xool ndax sëriñ boo xam ne dalay ñaanal pour nga am alal képp yow sëriñ bi ànd nga ak moom te boo jógee dem ci beneen sëriñ xam nga li li gën a yéeme li tax nit ñi jàpp ne maanaam ëllëg yamal xiyaam sëriñ yi ñooy man loolu laa jàppoon bu njëkk de la taxaan may jébbalu dama jàppoon ne bu ëllëgee rek sëriñ bu nekk sa mbooloo day taxaw nga ne leen dugg leen ajal parce que dafa am loo def ak yàlla ba nga xam ne noonu lay def parce que ñu bari loolu lañ yaakaar ah bu dee ñaan lu da ngay dem ci buxaaba ci borom jalan sëriñ bi boo feebaree do fa dem te bo jógee yobu addi kon lokoy koy doyee te du la woon yàlla ah léegi yow mi nga xam ne yaay def lolu war nga xalaataat parce que sëriñ bi ngay dem léeg nga nga ak mom ci benen bukhaba mom muy sangatu mom billahi barki dem rek dëkk biñ demone fee ma doon def cant yi ca Thiel sang fekke na paa bi jamono Sëñ Tuubaa fekke na ko ñu bëri jaar nañ fa tey ci ay mbàkke mbàkke léegi ana yow nan ngay ñëwee ci sëriñ di fa ñaanlu moom buxaaba la léegi nga ñaanlu fa ba pare walbati ku nekk sëriñam <laughs> non mu yaakaar la àllaaxira te yow àdduna gi yaa koy régleel problème wéeteeg yow li nga wax mooy dama ne dama laa jox sama bopp àdduna ak àllaaxira est-ce que kon nit ñi seetlu na ñu ñuy wax yëkkati sa bopp jox ko nit àdduna ak àllaaxira te moomoo sa bopp ki ko jox moomul boppam te buñ xalaatee tuuti dox tuuti dinañ gis sëriñ bi ñu tegal ko ci fii mu faatu ñu teg ko nii ñan ñoo koy sang taalibe fu ne dañ ko dugal loxo est-ce que kooku kon sëriñ bi kon nga yëkkati ko suul te moom mu ne moo lay moo lay dugal àjjana ëllëg te moom àjjanam sax leeru ko tey boo nekkee Touba ñu ne murid yi dañu wax ne boo dëkkee Touba sa dépense bu ko aj ci sa liggéey sa jaamu yàlla bu ko aj ci maam sa àjjana bu ko aj ci jaamu yàlla ewaay eh sab léegi dépasse man de Touba laa dëkk te chaque jour ma wéef wala orange man kon man foofu laa ko aj allah maa ngi jégglu de kon man fan laa aj sama jaamu yaa fan laa aj sama sama dépasse ci sama liggéey waaye kon man fan laay aj sama ajjana sëñ Touba ne leen ajjana ju àndut ak jaamu yàlla nee na fu ko waay bëgg fu ko waay am na ko dem wuti fu ko waaye gis na ko dem jëli waaye amul fii ci Mbàkke ñu dellu waxati beneen wax mu ne Tuubaa ku fi am puj pujub néeg moo lay sedd yawmal qiyaam mën na leen dëgg la de waaye nag ku fi am pujub néeg nekke fi leneen lu dul lu yàlla gërëm boo ëllëgee mu sedd la ci safara ku fi nekk ci lu yàlla gërëm nag du seede la ci àjjana xam nga ay wax a ngi ni yoo xam ne teg nañ ko ñu ba lu bëree bëri bëri ci nit foofu lañ toog da nga gis ñoo xam ne ñu ngi def safaan mais soo leen waxee ñu ne nee nañ ku sopp sëñ fàllu boo dee da dem àjjana billaahi wallaahi taalaay lii gis naa ko ñoo xam ne lii rek ci lañ yaakaar ñoom liggéey bi dafay mel ne day doog a te ñu ngi tëdd nelaw rek moo bëri mais fi mu toll nii fan lañu ñu nekk ci groupe yi rek la ñu nekk di wax xamu leen ne wax ju bëri ah mu ngi mel ni sëy bu bëri da ngay dem bu dootul nekk ci sa xel li ngay génnee nag te ñu ngi koy jëmale ay góor yàlla nag ni yow bu yàggee dootoo am sax xaalu wax fooy wax jëpp parce que li nga waroon a gëkk ci mbedd mi gëkk nga ko ci whatsapp bi ci ay werante rek. julli dëgg la ak julli du dëgg billaahi est-ce que waruñu fi alasmin salaatin daayimoona ñun xam nañ julli yàlla def na taxawal leen taxawal leen julli mais est taxawal julli ak siggi siggi benn la ki taxawal garab ak ki taxawee garab ndax benn lañ nii koy def kon bu arif bi taxawé kabar julli arif bi taxaw ci mom ne ko li ngay def du deug bu ñaari nit ñoo même kee sax bu ko tonté motul ande mais aramin kal alat wa huwa muhraki ana xalamun wala aqdiru asabiw arif bi mo wax lolu mu ne ma gisé may dem bul ne man kii la man ab objet laa rek boo xam ne maanaam comme big laa big nag bii big loxoo cay bind mu ne boo ma gisee ma yëngatu xamal ne yàllaay def noonu ci man ndab yu bari lool yàlla moom ndab yëpp ku nekk moo nekk ci sa biir ndab di def la muy def yow mi koy contrefe yaay kan moo tax mbir mi la waa ji wax ne mu ne alam bi dafa mel ni benn doj la mu ne ndox ma cay ball nag yow la loolu mooy lan ba in tasiru bi naa tanaqulan wa bi sayriha xutóotu bu sayadil bunyaani Cheikh Tidiane Al Maktoum dafa wax ne baa un tasiru bi mu ne baa tomb baa bi nga xam ne dafay dox ak ñun tomb bi ci suuf toq boobu mooy ban mooy nuqtatul asaliya lu sosu yépp fa la sosoo mu ne dafay dox ànd ak ñun mu ne tabax bi bu dëgëree ci la nit ki bu taxawee ci la garab gi bu taxawee ci la ana moo taxaw te du ndox moo ko taxawal ah lu taxaw lu ne ci ndox la commencé moo tax sëñ bi ne dama koo làmb fekk muy géej mu tànq leer ya naan boromam nuqta googu nag la wax ne moom mooy dox ca asal ba léegi mu ne lu taxaw ci la taxawe léegi ko li taxaw ci la taxawee bu delloo xam nekkoon nag xam nga boo xoolee galaas ak ndox rek nga mën a xam ne buñ nee nit buñ nee laa yaay yàlla nga war koo nangu parce que galaas biñ ko ne yaay yaay ndox mu ne déedéet nga jox ko sikar démb ndox tey galaas suba ndox démb ndox tey galaas suba ndox ba tàng jër lu ko fa fekk daa yëgut gis boppam nekk ndox buñ ko laajatee lu muy wax man ndox laa kon nit yi tam noonu lay waxee laa ilaha illallah laa ilaha illallah xëy gindi ko ci laa ilaha illallah mu seey ci biir laa ilaha illallah lii moo daloon sëñ Bamba bam ne biraasu man baarasani biraasu man bi baarisil mu takk baarisa man mu ne kii ñëw di sonko ci samay tànk nee na na xam ne songul samay duggul samay tànk tànk yàlla lay dugg loolu moo nekkoon sëriñ sëriñ dafay xam taalibi dafay ñàkk a xam taalibi bi ñëw laaj ñu jox ko waaye sëriñu jamono ji nag tey dajale nañ barki démb maa koy déglu ci waxtaanu daan Cissé sëriñ ñu bëri tey seen taalibi bay nañ seeni tool ba mu set waaye moom laalaguñ seen xol seen tooli taalibe seen seen tooli taalibe mooy seeni xol xol yi fees nañ dell ak bokkaale yàlla bokkaale yàlla gi dem na bu sax fa bu doon fa ay garab yu mag yoo xam ne war nañ leen a ruuj ñoom nag ruujaguñu ba fay bay sax dañ koy ruuj ba mu set nga bay fa leeru yàlla lii mooy sëriñ ak taalibe waaye du nekkul ne dak ak ak buur sëriñ yi jamono ji nag dak ay sëriñ ay buur lañ waaye taalibe yi ay dag ay dag lañ dag nag ak buur fu mu am jéem dafay am moo tax nguur sëriñ yi leen topp gis nga leen buur moom bu ko sëriñ toppee rek maanaam xaru yar lay doon ci moom lu mu ko def loo mu def ko te tey jamono sëriñ yi taalibe yenn yeewu nañ wuuti nañ yàlla sëriñ yi roofoo ak nguur gi moo tax kër Cheikh Moussa buñ doxee tuuti moom jamono ji waaye nag nee nañ sëriñ njëlbéen ga ak sëriñ lay doon ñaareel ba lan lay doon nguur mujj ga kéefër ñu ngi ci njëlbéen gi nag waaye nañ fexe ba ñaareel bi buy ñëw na doon njëlbeen gi rek parce que yonente bi ñuy wax ne badaal islaamu xariban wa sa yaudu xariban fa tuubaa lil léegi hadis boobu buñ ko seetloo ak fi jamono toll ak li nit ñi wax kon lan la ñuy gis mu ne lislaam dafa commencé tumuranke mu ne dina demaat ba eggaat ci tumuranke boobu waaye nee na bu boobaa fa tuubaa lil xuraba yi léegi bu fekkente ne xool nañ hadis boobu l'islam dafa commencé tumuranke te du nit ga tumuranke lay doon te jamono ji toll na ci tumuranke te nee nañ jullit yi tey lañu ëpp jàkka yi gën nañoo bëri kon ana jullit ana hadis bi lan lay lan lay wundu kon waaye lii xamal li lay xamal ne hadis bi wér na mooy mu ne saxaba yi biñ ko laajee xurabaa yooyu yonent bi daf leen a tontu ne ay nit lañ yoo xam ne kuréel gu néew lañuy doon ñi leen maanaam ñi leen bañ ñooy ëpp ñi leen bëgg seet leen loolu nit yàlla yi rek lañ fiy boddi nit yàlla yi rek lañ fiy sànni sëñ Tuubaa bi mu wootee luñ ko wax dof yonent bi mu wootee luñ ko wax dof sëñ Jóob nii barki démb luñ ko wax Jóob dof bu Jóob kurus jàpp Cheikh Moussa ma wàcc ci moom bërki dem njaay sëñ Tuubaa bi ñu ko naan fii moom dafay fay taalu jàng bi mu ànd ak ñetti nit ne leen xamal boole leen ak eh, sëñ Cerno ne leen xamal ma xamalal ma ñii li ma la xamal ndax ñu sang sama der moo te moom Cerno daf ne ko waaw est-ce que yow Mbàkke sab der tilim na ñu ne ko aakay ah, ndax fóore yi dañoo wax ne man damay fay taalu jàngu ma bëgg nag nga àndal maag ñii xamal leen li ma leen la xamal kon xamal loolu lan la woon ah léegi nag buñ ko defee ca la xamee ne ndeke waa ji dafa dolli ci taal bi ay mat waaye fayu ko dafa gisoon jamono rek fi tolloon ci njàngum alxuraan jamono jooju nga xam ne kaang foore pour nga nekk ko rek yiñ lay def loo affaire mbewte képp la il faut sëñ Tuubaa dégager loolu mu xëy ne leen koo xam ne njàng moo la fi indi mën ngaa laxas wuti ko feneen koo xam ne li ma bëgg nga bëgg nag ñëwal ànd ak man ci la tase daara yi fanweeri nit ak juróom-ñeent ne fa mel ni ay moro sëñ Tuubaa seen moroom la Seex Ibra moo ñëw am fulam daa ñëw ci buntu kër gi fa lan aw yet indi fa ginnaaw kër teg fa ñu ne xoolal dofu sëñ bi rek xool leen dof bi rek ñu dem wax ko sëñ bi sëñ bi ñu woo ko ne ko Cheikh Ibra loo jublu ci lii mu ne kay xanaa mbàkke koo xam ne rek ñëw na fi sol mbax na dinaa ko gàcc lii ba mu génnee lii Touba muur kaala gi mun dem pour wane ne sëñ Touba ni ko a moo tax Cheikh Ibra képp ku ko amagul sa woote jàllagut ndax fanweeri nit ak juróom-ñeenti ña dañ daan toog ci kaw ni sëñ Touba toogee ci kaw ferenkalaayu ni sëñ Touba ferenkalaayo lu sëñ Touba rek ñu def ko te xamuñu lim xam Cheikh Ibra nag ba mu wéyalee yoon wi. foofa la yoonu taalibe bi jóge ba tey jii kon moo tax mu ne mooy baabul muridin léegi rek am ñu bari ñoo xam ne bi mu ne baabul muridin rek ñu seet duñ julli duñ woor te xamuñu yàlla julliwuñu wóoruñu xamuñu yàlla tey doxee sañ-sañ léegi lii fu ñu koy atte boo waxee sax waa Kër Cheikh Moussa ñu ne ñoom duñ ay Baye Fall waaye duñ Baye Fall parce que Baye Fall bu fekkee loolu lañ ko jàppe ñoom duñ ko Baye Fall nag dëgg xaqiqiyam Seydina Mohamed moo ko jëkk a def fukki at woote na ko julliwul woorul natul asaka soxna Xadija ci la faatoo te soxna Xadija ana ku leen duggul àjjana kon lan moo ko dugal àjjana baatub laa ilaaha illallaah bu mu xam moo ko fa dugal kon ku fa dugg moo la fa dugal léegi nag bi sariya ñëwee nag yonent bi yàlla def ne ko su ma jaxal naa ko ala sarihatin min al amri kon suma mooy lan mu topp kon da caa topp waaye li njëkk tey mooy xaqiiqa bi tey ñu bëri nag dañuy jiital sariya bëgg a teg xaqiiqa du sotti looloo taxoon Sëñ Tuubaa fay taalu jàngu bi ubbi taalu tarbiya bi ngir xam ne nit ñi bu àggee ci yàlla li ñuy wut dina leen yomb tey góor yàlla yu bëri fii jàngut mais ku fi toog fii di wax da nga yaakaar ne moom jeexal na téere yi lan moo tax yàlla ji nekk ci ñoom yonent bi jàngul woon sariya puuritu xaqiqa mi lañ daan wàccee ci moom mu di ko utiliser tey nii nit ñi toog di ko jàngale ci daara ñii ubbi ay internat di jàngale te ngay gis nag ñuy indi promotion naan xayrukum man taallama alquran wa allamahu ki mooy ki jàng alquran di koy jàngale yónnente koy xamle kon lan yàlla ji parce que dañ ne moom mu nga woon aliya avant ñuy bind nit ne toog na ne alquran mooy téere bii te ne alquran ci umul kitaab avant ñuy bind nit lépp bind nañ ko fa léegi isa jaa nasrullaahi googu ban ban fatxu la doon wax moom koo ko posé officiel ah, koo ko posé mu mu kar parce que fatxu màkka la yaakaar ne moom la isa jaa di wax kon fatxu màkka bi moo nekkoon mbir mi moo de xaqiqa ba comme nit ki bi muy judd yaramu neen la indi nga wut nga wut san nga wut ay yére solal ko kon alxuraan ji fatxu gin doon wax ca booba ban la woon isa jaa bu dikkee nasrullahi ndimbalal yàlla wal fatxu ànd ak ubbi ga war a ay ta nga gis ne annaasa nit ña yaddu xuloo nañuy dugg ci biir diine yàlla ji kon alxuraan jooj isa jaa boobu ban la doon wax léegi nag ñu woddee ko bii màkk kon nag bàyyi leen ci xel waa koñ bi unité 5 ñëw leen ci Cheikh Assane mu won leen lan mooy unité 5 unité juróom la rek juróom mooy juróomi ponk lislaam li mu won leen xaqiqa ba waaye ponk kese poto kese bu amul tal bu talee danga tooy bu naajee danga lakk leen ci seen asal mu won leen dal bi nga xam ne wala mu daleel leen poto yi ngeen mucc ci safara mucc ci ndox ndax ku lab dem sawara ku sànku lab doo léegi nag buy taw te amoo dal nag foo jëm dangay sey kon nag asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu suñuy jaar jaar daal dañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam daanaa wax ne su ko xaari doon jar danaa ko am. abonné seen YouTube bu Ndiamé TV bësal notification bi ñu tàmbal foofu nga mën a abonné wu. ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque